salaamaaleykum kunkum maaleykum salaam yéen waa Mbidor Bayaax Kër Massar Malika man ak yéen la dara du sedd li nekk ci man newul ci ñoom li nekk ci ñoom it newul ci man gars yi dama leen di wax naan tous les dimanches à de 15h à 16h nga xam ne mooy musique riff musique mbalax fii rek la tous les mercredis musique rétro laay ñëw ak yéen ak kan DJ Chérif man ak yéen la dara du sedd gars yi faj leen ko ci man damay daal di ñàpp ñu sax sonn